jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf coalition ànd ci dëgg ñu ngi koy ziyaare di ko dalal jàmm fii ci ëtt bi di ziyaare it waa ëtt bi ak euh, dëkkandoo yi di leen euh, jaajëfal wax dëgg yàlla sàkk bi rek ñu ngi toog di xaar bu ko defee ñu ngi nuyu ñëpp di ziyaare ñëpp di jaajëfal ñëpp. asalaamaaleykum soxna Ndeye Awa ñi lay teeru di la dalal jàmm di la ñaanal yàlla li ngay wut yàlla na la ko yàlla defar te muy sa wërsëg di sa muur ak képp ku la ko yéene ñun dañu mobiliser wu gisoo fi benn xale bu ndaw gisoo fi ko amul carte gisoo fi koy càmbal càmbal ñun nag ku nu yëg. rek la ñuy seet ku nu yëgul ñu toog jàpp sanu njàmbur comme que nag yëg nga nu dugg nga sañu biir xool lu nu man dinañ la jàppale si kàntanu yàlla ba li ngay wut yàlla na la ko yàlla defal. yow loo bëgg nan la koy defal dama ne ndaw buy am dara looy ragal ngir ko seen alimaamu laay danga leen jox cër ba mu mat sëkk sëkk. yow da nga ni duma duggal Cambérène te jaaro ko Ndiaga Sarr tey jii moo nga ànd kon yalla na yalla fay ku bëgg suñu sey dañ lay bëgg mbir mi nak kërëm mo ma kërëm da fay ma bisum nek mo may la jëm mais nga jangal ñu nuy nappé mo gën moy liggéey mu won no ay projet yu bari ni li ak ni ak nii macha allah wax ñun ci yar ak teggin xam nga tay soxlo nak ci ndox toog way surtout ci nit ci lañ ko soxla xool ko ni mu mel ak modeste ak modeste li may dem këram bëriwul mais dafa modeste moo tax vraiment mu téye ko jàpp ka parce que su meloon neneen du ma ko du ma ko faale ku jullite la dafa jullite ku yaarame la ku dignité la moom moom day aw mi man looloo tax ma fonk kon dama bëgg bi su jotee ñu das suñuy kàddu bàyyi lépp ñu jox ko ñu jox ko bi loolu laa bëgg te nag lu ma la wax da ngay lu ma la wax da def gis nga lu mu mënul du si dugg doo dëpp lu mu mënul du si dugg te loolu mooy politique te politique loo toogul xaar du fekk politique mën nga xëy tey jii mu biir tey mu wasin tey loo toogaat du fekk kon patient mun mais tey il faut mu am lii boo amul lii damay bàyyee nit ku nit ku baax du ko def te nag kii vraiment ñoo ñun ñëpp mbooloo mépp ñoo ngi sa ginnaaw. maa ngi ci daanaka sama 63e année. yàlla ma gënal ku nekk aji awa ngooñ mii xam naa ko bu baax a baax a baax parce que bokkoon nekk Amérique ñu fa dokk di liggéey fulla ak fayda laa xamoon ci moom ak bëgg boppam bëggi waajuram man ba fii may waxee yow am na loo xam ne da daan jóge Italie di ñëw Amérique di liggéey nam ware kenn xamul ko dara lu muy dignitéem ak fulla ak fayda malgré que léegi mag laa sax ba léegi costume ak dàll yu ma daan indil sax lépp lu mu la wax aussi nag xamal yàlla tax may wax de yàlla mu ko gënal téeméeri junni yoon lépp lu mu la masaa wax incha allah boo ko defee commande am nam naka na nga ko séqoon moom dana ko def li ci des nag rawuti bët carte bi daal mooy mii nii mooy kook si ak biddiw yi bu yàlla defee ñu dëkk jàmm ku ci jël ñeent ba juróom dugg ca mbañ gàtte ba mën ngaa lem def ko ci enveloppe bi sànnil ko incha allah liñ ci am yaakaar ci moom bu yàlla defee mu fol daan ko bokk gis. awa yal na la yàlla say naa li maamu jàppale. nagam ñoom seen maam yi ñoo doxe fa waala ne. ñëw wuy si maam Baye fii yal la maam Baye jàppale. noo ngi sa ginnaaw nag bu ma xamee kayit gi may wateel ñun ñëpp moom la ñuy wateel naata xam. di kontaan ci jotaay bi di gërëm sama càmmiñ bu baax Sibéru Njaay maa ngi lay gërëm waaye nag soxna si laay gërëm tam ndax mën naa ne soxna si Fatou moom moo gën a booleek moom kon soxna si maa ngi lay gërëm di kontaan ñun dañuy politique waaye ñun defe naa développement liñ gën di yëngu ku ne xam na ne dëkk bi jeex na programme yi bëri na mais ñun dañoo yàgg liggéey ci développement ndax man 2014 la 2004 2005 la commencé politique di liggéey ci golf sud gi ma dëkk émigré la boo xam ne yàgg naa à l'étranger ba ma ñëwee di politique itam àndoon ak réew mi ba 2007 dem naa ci élection sant yàlla bu baax ci élection yooyu ndax am naa ci résultat yi ma gënal ñu dema ci ba 2009 ma ne man daal gisuma ci sam bopp politique naa créé ànd xeex ndool di yëngu ci développement and xeex ndol bobu lañuy ñuy liggéey ba 2010 ci la dugg bés du ñàkk dugg bés du ñàkk 2012 ma nekk député ndax nit ki itam foog nga présenté wu ñu xam sa un peu ci sa parcours. bi ma nekkee député 2012 itam terewul maa ngi continuer ci développement ndax man développement daf ma intéressé di def ay formation transformation fruits et légumes céréales locales savonnerie céréales local ak teinture ak lu nekk ñu ngi koy def pour bëgg jigéen ñi gis seen bopp ci social ak politique. ndax dañ ne bëggatuñu jigéen ñi di lang rek ci kaar yi ñu leen di solal mbubb di leen jox 5000 dañu bëgg jigéen ñi liggéey ba nga xam ne bu politique bi ñëwalul itam social bi ñu mën a kenn ku nekk di liggéeyal sa bopp. ñun moo tax ku ñu àndal rek dañuy bëgg defal leen ay formation pour ñuy liggéey ndax dëkk bi boo xoolee li politiciens yi di def du bénéfice jigéen ñi. moo tax ñun li ñu formé ci ay jigéen macha allah ci ay groupement xamul nu ñu toll bëri na démb ci heure bii ñu nga woon tëngee ci di def cérémonie remise de diplôme bërki démb ña nga woon mbuur fépp fu ñu am rek sunu morom moo xam ne mu ñu fa toogal di ñu jàppale ci politique say mbokk dañuy bëgg jàppale leen ci formation ndax ñu mën a liggéey ndax ñàkk liggéey boobu ak xëy na néew ji doole ji moo tax ñu leen di fëkk donc ñun politique boobu la ñu bëgg dàq mu dem xale yu góor yi ñuy àndal tam bëgguñu kenn di sol t-shirt ak 2000 ñu leen di defal ay formation yu ci côté yu bëri ay formation réparation portable ak ku ci mën bëgg liggéey dara ñu seetal la nu lay dugalee nga def formation ñu jàppale la donc ñun ci yooyu la ñuy yëngu def ñun ci ay formation mécanicien yu bëri donc politique boobu ñun moo ñu gënal sax defe naa ne di yëngu ci leneen te ci loolu lañ nekk bu loolu weesoo développement bi ñu nekk itam ñu ngi yëngu ci politique bi élection yi ku ne xam na ne yegg si na le 30 juillet dimanche bii di ñëw la

ñu ngi leen di ñaan yéen ñëpp ngeen votel ñu bu dimanche jotee ngeen jëli seen carte électeur parce que carte électeur yi bu ñu ko julul élection du am te ku ne xam na ne labaj gi bari na ndax boo xëyee ñu naan ay téeméeri carte d'identité di di sàcc na ko jàpp nañ ko da ngay waaru ci yàlla parce que carte yooyu ñu war a voté ñu war koo sàmm ba nga xam ne loxo waru koo laal du n'importe quel loxo ñoo ko war a laal ñuy taxawaalu ba ay nit di leen confisquer di leen téye ci ay kër dañuy dem ba ñun dañuy jaaxle élection yi nag moo gën a grave ci élection yu mës a am parce que élection yoo xam ne ay carte d'identité yu taxawaalu ñuy dem ba naan nañu voté récépissé c'est dangereux parce que boo bëggee voté récépissé ci yow mosoo am carte d'identité amoo benn identification photo boo xam ne dinañ ko wane pour mën a xam ne xale bii mosul voté am na adresse identification carte d'identité wala passeport loolu c'est dangereux te ni mu mel ci Sénégal problème yooyu moo am ci diaspora bi ndax man damay dégganteeg ñoom toujours donc élection yu mënul am ci condition yooyu boo waxee ñu naan nañu voté permis wala passeport non loolu mënul ne parce que li loi wax mooy nañu voté ak carte d'identité ñu def loi voté carte d'identité biométrique donc loi boobu la ñu war respecté leneen lu ñu ci changé dinañ ko yóbbuwaat assemblée nationale te du loo xam ne lu ànd ak dëgg la fasante nañoo yéen kóllëre te élection yi yett si na te bu jàllee jàmm ak salaam incha allah dinañ leen jàppale ci li ngeen fi wax tey ci lépp luñ ci mën yoruñu nag compte boo xam ne dañuy tibb di joxe ñun lépp lu ñu bëgg joxe dañuy préférer def ko ay formation ñi deful dara mën cee jàng boo liggéey lu ñu leen mën a jàppalee ak fu ñu leen mën a utalee ku leen jàppale ci financement ñu jàppale leen ñu liggéey